Assalamu maa ma leen di nuyu man maa ngi tudd Gueye maay coordonnatrice projet club changement climatique projecteur changement climatique euh, action solidaire internationale moom moo ko initié lan moo tax mu initié ko dafa def ay constat yoo xamante ne si looloo tax tey ba ñu génnee ci ci fa ñu demoon ñu ne tey dañuy bëgg dëgmal benn projet boo xamante ne si club changement climatique lay tudd te ñu jagleel ko jeunes jeunes yi dañoo demoon euh, Marrakech euh, def benn participation loo xamante ne si dañuy waxtaanee lépp lu jëm si wàllum climat ak regroupé état yu bari foofu du COP 23 ba ñu demee ba foofu dañoo def constat que ni am na jeunes yoo xamante ne si fii si suñu réew mi waroon nañoo mën a bi wax seen xalaat mais ba ñu demee gisuñu loolu noonu dañoo gis une absence totale des jeunes surtout euh, euh, dans les pays africains looloo taxoon ñu ba ñu génnee ñu initier projet bi ñu club changement climatique am na yeneen constat yoo xamante ne si euh, def nañ ko mooy que ni jeunes yi jot amuñu information jeunes yi impliqué wuñu jeunes yi sensibiliser wuñ leen si li nga xamante xamante ne si moom mooy changement climatique looloo tax mu initier projet club changement climatique pour relever le défi lié au déficit d'information de communication et de sensibilisation des jeunes sur les changements climatiques. Euh, li may xaar ci jeunes yi mooy ñu engagé wu ñu gën a impliqué wu parce que projet euh, club euh, changement climatique dafa nekk débat boo xamante ne si ñi nga xamante ne si seen xel dafa màcc ci changement climatique ñooñu lañ koy jagleel tay nak dañu bëgg jeune yi gëna engagé wu gëna impliqué wu ñu jël projet bi def ko seen projet jël projet bi parce que tay jii projet bi bu yeggee fu sori ñom ñom ñom ñoko fa yeggale parce que projet bi seen projet la ñom ñoko mom jeune yi ko mom liñ leen di ñaan rek mooy ñu gëna engagé wu euh, gëna impliqué wu gëna di changer aussi seen comportement parce que euh, jeune dafa nekk lo xamantene si da fay constituer un potentiel indispensable pour soutenir le développement du pays looloo tax ñu jaarale ko ci jeune yi di leen gën a ñaax daal ñu gën a impliqué wu euh, autorité locale yi tamit li ñu leen di ñaaxee mooy que ni ñu jàppale jeunes yi dinañ am ay initiative yo xamantene ci si dinañ koy doxal mais parfois duñ ci gis implication autorité locales yi ta ñom seen implication warna am solo ci côté institutionnel ci côté financier ci côté technique je pense que euh, autorités locales yi tamit warna ñoo mëna Parce impliqué wu ci lolu noonu parce que euh, Sangalkam bu développer, rek développement ñep lay doon. Euh, Sangalkam choisiruñ ko rek projet bi va intervenir dans d'autres zones Amna Sangalkam euh, amna Bahni, amna Kayar Joal Taiba, kaolak fep dañ fay dem pour def ay installation euh, ki le choix comment dire, Sangalkam dafa dañoo def ben étude gis Sangalkam tay ji ak dëkkuwaay bi numu démé ak euh, jeunes yi war nañ leen mën a impliqué war nañoo jël Sangalkam daal impliqué ko ci projet bii nii choix bi nag du loon du doon du nekk choix boo xamante ne ci c'est yi mhm. merci.